mbokk yi ak xarit yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu am mbégte dajawaat ak yéen ci li nga xamante ni moo di ganu ayu bés bi ganu ayu bés bi tey jii nag ñoo ngi ci dalal ki nga xamante ni moo di Amadou Gaye nekk président fédération nationale des boulangers du Sénégal Amadou Gaye ñoo ngi lay nuyu. maa ngi fay di am mbégte di ñëw fii pour waxtaan ak yéen ci mbir mburu mi. Euh, seetlu nañu depuis 26 bi passé format mburu bu bes te yeen dafa melni ke da ngeen ko forcer wala lan la. waaw dama bëgg wax sénégalais yi euh mburu di manière globale lañ ko homologuer manam mburu ñun mun ñu ko yok mun ñu ko wañi fam processus bu ñu nekk maanaam amuñu sañ-sañ li xew kay euh dañoo nekkoon en 2019 avons une grève une avons une ñaari fan ñu une concertation ñu avons Nous ñu ni définitivement avons une ñu il faut ñu une réglementation donc nous avons une ñuy dox réglementation Nous avons am réunion plus de 100 réunions bu mu en 6 mois 31 décembre 2019 président Macky Sall signé benn décret 22 77 décret bi nag dafa ay ñetti pàcc la tënku dañu léegi accès à la profession maanaam booy dugg ci métier bi am na yoon booy jaar maanaam dañuy am lu ñuy wax autorisation autorisation lu si jublu pour ñu mën a ràññee kan ak kan mooy dugg ci métier bi benn bi mooy dañuy njëkk a aar environnement bi maanaam ñi nga dëkkaale ñi nga dëkk balaa nga ubbi fuur il faut nous nous déjà pour distance à ben 500 mètres ba il faut ñu xool ndax bâtiment bi koy def méngoo na ak four nga xam incendie yooyu yëpp du am problème environnement ba pare autorisation nga doog dem aussi ouvrier contrat

beneen bi mooy norme yaa ngeen wax ni bu nga ay xott ngeen ñu jox ak affaire yu baaxul ak affaire yooyu yëpp dafa yàgg léegi ñu def ay norme mburu nu mu war a mel baguette nu mu war a mel petit pain yooyu yëpp daal def ko poids bi longueur bi ñun nag ñaari at ñu topp si loolu ñu ne état vérité vérité des prix teg ko fële njëgu mburu mi sax duñ ci waxati liñ bëgg mooy li nga bind yow nga appliqué ko décembre 2019 30 décembre 2019 bët demuñu tey nii appliqué wuñu réglementation bi nañ ko bëggee ubbeetu fu di nga gis ku waay neex ubbi ful kenn mënu si dara gis nañ sax ay rakk bu jigéen ministre benn ministre bu mag ñu bokk ndeeg bàyyi kawe nag ubbi na fuur fu sorewul benn boulanger matul cent mètres ñu jéem ko tëj mu leen topp leen fële fii dafay ubbi au même moment mu am yeneen boulanger yu def lu mel noonu ñu yóbbu leen mise en demeure di leen yóbbu ay huissiers di leen di leen di leen créer donc loolu déjà rek problème la impunité boobu am na ci affaire bi nga xool yow fii Sénégal boutique boo dugg day jaay mburu léegi ana la ñu waxoon affaire hygiène ana la ñu waxoon lañuy aar askan bi mais y a problème donc état bi nga xam ne moo doon def loolu yëpp mënu ko def ba pare ñun mu tënkuñu mu ne yéen boulanger yi du leen yokk ñun ay ay ay ay industrie lañu dañu protéger mais kon am nañu sañ dans ce cas trouver une solution pour suñu membres ñun arrêté en octobre 2019 pour Dakar ak benn arrêté février 2003 février 2020 pour région yi fixé format ak mën nga def ñu dañ ni mën nga def mburu fukki dërëm mburu 100 francs, mburu fanwer ak mburu deux ku poids boo mburu 100 francs, bi 125 grammes la mburu cent grammes bi moom jar kilo 150 jar cent cinquante grammes ñu tef si nag léegi nag ñu ni grammes c'est obligatoire madame, nit ki ko war a def kenn weddiwul loolu. mooy buy jar mhm. ñu ni aussi Ouais donc nga a si sa boulangerie ak point de vente agréé waaye loolu on a ñu décret bi de dafa ni mburu di manière globale maanaam si boulangerie bi la ak point de vente agréé kon kay sax la wax mi génn si boutique yi léegi nag ñu ni nous de Sénégal da nous ñu am ay vraiment dañoo nekk ay des dañu

mu nekk mburu xott mooy mburu fanweer bi ñun leen bàyyi leen loolu jënd ñaari mburu 200 cent nga économiser fukki dërëm mburu bi ñu lay jox du doon du nekkatul du mën a nekk di xott parce que 230 cent grammes lay pesé gën koo gën a gudd bi nga jël gën ko baax parce que boobaa dañ koy def ba mu nekk 80 vingt centimètres aujourd'hui ñu ngi si ay soixante cinq centimètres maximum sur les baguettes de 190 quatre grammes ñun loolu la ñu wax donc ñun dañ ni lan moo fi jar coow c'est-à-dire que dafa ni kon lañ doon respecter la mu matérialisation bi loi bi mu ak yu bind loolu mooy bi fi toll appliquer la la jox pourtant gis ngeen ñuy jaay trois ñuy jaay cinq dama doon dara man mi di wax yow. depuis deux ans man. mais yooyu ay mburu spécial la. deux mille ba léegi man maa ngi ci ay mburu deux naa ni. mais du mburu du mburu mburu rek. je spécial la. mburu spécial. waaw mburu mooy mburu boo xam par exemple dinañ la ne da si rax ak mboq loolu moom beneen façon mburu la loolu bokkul ci homologation bi mais dama ne la poids wu mburu guddaay bi dañ ko yàgg def mburu deux cent euh, man mii di wax ak yow avant arrêt di génn ñu bëri ñu ngi koy def. mais man expérience bi ñu am ñun boulanger ñun FNBS dañu am expérience dañu gis lolu parce que ñu dem di wuti ay prêt ay banque mais di dem di wuti di daanu c'est pas possible les nag luy rentabiliser wu ñun ñi ñu ñi ñu accompagner financement yi mais ñun on les a imposé ni leen bu ngeen naré def mburu cent grammes que ñun duñ leen duñ du ñu approuvé dossier de financement parce que parce que da ñuy lor après parce que ñun dañu japp ni tay bulanzi bo xamni day def fukki sac ay mburu fanwer kasse mën le bireul ci kamil koku par wer mënul am sax 100000 francs yu denc c'est très clair mais kuy def 4 ba 5 sacs, gën sa new dana am minimum 1 million ou 2 millions pour pour dire ko xamni day def mburu 100 230 grammes yi ak touti 190 grammes mais ku am conseil bobu nga baxé ko askan bi nga baxé ko say say mbokk lañ def mais tek ko si yoon. mais politique bi ngeen jël aussi est-ce que bëggu leen euh, éliminer li nga xamné moy 190 grammes bi parce que sénégalais aussi lolou lañu gëna tam de parce que moi j'ai fait tour yenn euh, boulangerie yi j'ai vu que pain 200 yi mo fa gëna a si. si ci ci ci étagère yi que pain 150 yi est-ce que ragalu len aussi sénégalais yi habitués habitué wu mburu euh c'est que problème moy dañuy def un mauvais procès bu ngeen waxee loolu ndax sa askan bi moy choisir man suma ma suma ni mburu 200 cassé duñ ko jënd du ko du ko laal du ko def parce que nit ñi nga jox leen lu baax mo gën xam nga tout à l'heure expliqué naa la bénéfice bi nit ñi war a am donc dañoo xamul rek parce que yàgg nga ñu wax yeen mburu xot nga ñu jox mais mburu xot boobu dañ ko wara dindi xam lu waral mburu xot boobu 2014 dañu un poids de 210 grammes nous wàcc ko bëgg 190 grammes loolu ce ñu lor ba léegi ah te comprendre que lu ñuy wax baguette gën saa néew dafa peser 250 grammes Si vous bëggee une dëgg ba France 250 grammes bi ngay peser soo bëggee mu nekk ficelle le même poids nga yokk mu gën a sew mais day avez le même poids 250 grammes mais day gën a mais lañ bëgg Sénégal lu ñuy wax une modernisation du secteur. Le consommateur bi ci loolu yëpp. consommateur bi nag man de vraiment à Parcelles Assainies sincèrement xaw ma ban dëkk de ak Saint-Louis ba ma xam ak Thiès sincèrement gis n'a consommateur yoo xam ne bu ñëwoon tey sa fuur fekk fa mburu fanweer bi kase dañuy génn dem dem jënd ko feneen bu deux parce que dañu bëgg seen njaboot. pour gën a am mburu bu consistant la ñu wër la ñu wër am ñoo xam ne mburu bu constant la ñu wër donc man comprendre ma daal c'est-à-dire que lu fi jar coow ba nit ñi bëgg a dem ay grève cest que man ñëw di dugg di di sonal nit ñi di intimider nit ñi ndax yu la nga leen may ba pare nga ne da nga koo donc doo ko fi defee. waaw euh, ci loolu laa bëggoon ñëw sax gis nañ ne que bi dogal bi génnee dañu gis ne que direction commerce dañ daal di ramas yenn euh, chariot yi ak ña nga xamante ne ñoo yor ay pousse-pousse di jaay mburu loolu fan ngeen ko nan ngeen ko jàngatee yéen ñi. donc ñun dañu xaw a jaaxle ndaxte mënoo ñëw ni ko mën ngaa def lii ba pare nga dem si biir fuuram di ko xuloog moom ba di ko arrêté arrestation jël nangu mburóom 200 yi mu doon defar. nga gis ni mu am na mburu fanweer si biir four bi lakk gu ko sax nga ne ko sama yoon nekku si fekk ma ko fi man mii di wax yow dañ ma convoqué ñëw nañ sama four parcelle ni ma ay boru dix ma neuf heures ni ma ana mburu fanweer bi mais ki ni ko jeex na mu ni ko bind ko convocation waaye léegi kon man damay laaj kon léegi su ma liggéeyee mburu fanweer boobu dama wax ni dama koy wàññi ma liggéey ko ba pare donc dama war a xaar ministère du commerce ñëw ba gis ko ma doo ko mën a jaay loolu lañ bëgg ma ne leen loolu duñ ko def ndaxte yoon may na ma quantité bi ma si war a def kenn du ma ko wax parce que maa jënd suma farine jënd sumay levure yow sama charge donc ñoom amuñu sañ-sañ di ñu buntu xataal li nag ñoom nag yàlla xëy na ñu am doole parce que ay agent assermenté lañu vraiment jaay ñu doole jaay boulanger yi doole ñi ñu jàpp leen ñii ñu convoqué leen ñii ñu def leen ay amende vraiment affaire bi daw yaram. mais am na format standard bi ñu tegoon ngeen àndoon ci aussi nest pas. mooy format yëpp lañu ànd maanaam mburu cent franc bi pourquoi waxuñu mburu cent franc bi te mburu cent franc moo gën a jar fi mu toll nii fi mu toll nii am na dëkk yoo xam ne bu demee Fatick mburu cent franc kese la gën a def ñoom ñoom mburu deux cent sax def ñu ko mburu cent franc bi la gën a jaay seen production bi yëpp quatre-vingt-dix pour cent donc moo tax ma wax ni kon donc ñun askan bi moo ñu ñor. mais su gouvernement boo xam ne dafa taxaw tem ni ah faaw ma créer ñi euh, dafa doy waa daal dafa ñuy xaw a tiital moo tax ñu ni kon ah sama ay buntu xalaat moo si nekk dañuy bëgg ba pare ñu ñu ñuy dëkkal fu ñu dëkkul maanaam ñu ni FNBS parce que li ñuy def nii du effet du fait du ñu ñun kese dañuy ànd ak beneen regroupement des boulangers du Sénégal euh, boo xam ne Djibril Faye moo ko jiitee Nous sommes vraiment euh, dañu trouver solution parce que il faut les la vérité des prix ñun nous ñun combat vérité des prix parce que pain bi homologué nous. ni kon la ngeen xalaat mais da ngeen de da ngeen nguur gi tamit de da ngeen pain par force. non 200 francs question par force nous ko yoon ko ñu koy def amuñu problème je pense que actuellement nii lañ gis ñetti fan yi moo indi coow li yëpp tey ñoom bu ñu waxoon génnoon si tey tey ñoom tey xam nga ñun dañoo décidé grève mais ñoom tey bu ñu génnoon tey ni ñoom ayewuñ ko mais coow li jeex donc sa veut dire que est-ce que ñu bëgg nañ jàmm ñoom il suffit que ñu génn ñun vraiment li ngeen wax ni ñun ayewuñ ko yoon moo leen ko may def leen ko kon affaire bi coow li jeex

mu metti ma loolu nag waaye nag xam nga yàlla moom mm, bàyyiwuñu daal ñu sant yàlla bu baax ku ñu jéem a toroxal yaa koy gis incha allah. mais lu tax négociation yi ko euh, am fu mu taxaw. continué wu ñoom ñoo bëggatul négociation ñoom ñoo bëggatul euh, euh, ñoom ñoo bëggatul négociation parce que woote woon fi réunion annulé ko donc ñoom ñoo woote réunion annulé ko bon prétexte sans le Covid donc on verra ñun nag liñ man rek mooy wax askan bi ñu.

mais ñun nag quand ñi nga xam ne dañ leen di jàppale ñooñu ñooñu ñooñu dañoo sonn ñun ñooñu ñu sonn nag dañoo bëgg ñooñu ñuy taxaw grève d'avertissement pour wan ni dañoo am jafe-jafe xëy na bu ñu déggee dañuy ubbiwaat négo négociation yi bu ñu defee ñaari fan xëyaat liggéeyaat ni ñaan liggéeyee ah xëy na danañu mën a diggaat bu ñu jogaatee ay fan defaat noonu rek. ah bon kon da di waajal ay grève d'avertissement non mënul ñàkk loolu daal. Bon, euh, me diront que le contexte ne le permet pas aujourd'hui. Parce que tu 10% de bu ñu taxawoon xëy na dana dans les dans les boulangeries ils am lu ñuy wax inflation ku doon jaay mburu ñu doon bañ mburu 200 ils vont acheter le pain à 500 francs ñaari fan yooyu di nga gis ñii jaay mburu 500 francs les rabatteurs vont prendre le pain à 500 francs est-ce que l'État la état bi bëgg ñu il solution a état bi fa bëgg ñu tëj suñu licencier suñu employé loolu ñu bëgg ah ñu gaaw nangul résister résistance bi mooy ba dallu ba am solution bi et puis sax il solution ah, yoo xam a boste mbay mi parce que dañ nekk régime d'homologation on va essayer de faire des pains composés yokk askan

mu war ko exiger yan taxawaay ngeen ci nar a indi parce que nit ki aussi mën na am sikki sàkk si pois bi ndax mot na wala motul lu lu tax du ngeen teg par exemple balance ci fi ñuy jaayee mburu yi ku bëgg a peese ñu peesal ko mburoom xool ndax mot na walla motul justement xam nga ñun lañ njëkkoon wax sax la ñu waxoon prix au gramme dañ buggoon def maanaam tey soo jënd mburu li nga li mu peese ngay jël bu ñu nee gramme bi un gramme un franc la bu peesee loolu nga fay loolu ñun loolu lañ loolu lañu demandé loolu mooy suñu revendication principale nag loolu bu amoon loolu ñu ko mën mais le contrôle doit se faire par ministère du commerce yi ñoo ko def donc dañoo wax ni ñun sàcc poids moo xaraam na déjà boulanger bu koy def yaa ngi loraate loolu moom mooy vraiment c'est un débat boo xam ne muy loolu loolu moo tax ñu indi norme maanaam moo tax surtout réglementation bi ñu ñoo exiger Sénégal mosul am norme manam norme dañ ni bo bëgg def bain amoo droit def par exemple poids bo bu nee nga def baguette nga jël poids wu 200 comme 180 grammes def ko mu gàtt mais lolu am ñu ko def comme kaolak ñom poids 180 quatre grammes la def ni mais dañ koy gàttal te pourtant poids bi da koy maté mais guddul te boobaa nit ki du ko mën dagg deux euh, deux fois ñun lolu dañ ko changer dañ ni légui norme bi. Si vous avez un poids de 170 grammes vous da nga ko war a mesurer minimum 65 cm 55 cm 70 cm minimum donc pour dire nous yëpp gis nañ ko pour consommateur bi bañ a donc ya rassurer consommateur nous n'a pas de problème pour ça hein li ñu am solo rek mooy euh, naka la def ba secteur boulangerie changé parce que ba a adduna tukki mburu day am de xam nga luy changé acteurs yi ñooy changé ñu mel ni man moo tax ñëpp lu ñuy def ñun dañu bëgg ëllëg suñu njaboot gis si une bonne fois tout. mais il faut comprendre que Sénégal même dans l'Afrique hein, parce que problème bi ñuy vivre actuellement nii Ivoiriens yi moom la ñuy vivre ah depuis tey on a on a on a dañu war a créer actuellement nii taxaw na ma pare Ben syndicat bu ñuy wax confédération africaine de la boulangerie de mais ivoiriens yi ñom fuñ ñu ni ci walum nuñu améliorer sen mburu ba wàññi ci quantité blé bi mo leen gëna soxal fu mu nekk ni période bi temps yi rek ñong ci doon waxtane dañ nekk euh, dañuy xol nuñuy améliorer mburu bi fekk du metti ci consommateur bi du metti tamit ci boulanger yi non lu tax yeen xalaatu leen loolu waxee Côte d'Ivoire ñun lañuy ñuy déglu ñoom ñoo nañu fi deux fois te ñoom danañ ñëw fi le 2 juillet bi de 2 août bi non dama lay rek pour dire que li xew Afrique de l'Ouest bi on a un groupe WhatsApp toutes les informations yu xew si toutes les boulangeries de l'Afrique de l'Ouest mi fi un sama groupe WhatsApp tous les jours on se communique ils ont de sérieux problèmes xam ça, ñom la farine coûte à 20 000 francs certes. parce que ñom il paraît. TVA 0%. n'est-ce pas. Donc, on sait ce qui se passe. Parce que en janvier, ils achetaient la tonne à 250 euros. Oui, maintenant, aujourd'hui, Ils, sont à 3. Ah, même, même, même ça, comme à Yamoussoukro, ils ont plus de 21 000 de 21000 ou 23 000 même. Oui, c'est des informations qui circulent. Ben, nous avons décidé de grève. L'État a dit que non. Le Sénégal def, def pour une nouvelle réglementation. Ils vont essayer de changer la norme. Actuellement, bëgg dem seen ministre bi génn arrêté pour nous changer def comme Sénégal Madame comme. la teneur en blé la ñu bëgg a waaw def comme Sénégal surtout donc ñun ñun am nañ nous ñun on a un décret soixante bis qui nous impose d'incorporer 20% du du mil du maïs dans nos productions ñun fa lañ jëm la la dama ne loolu solution boobu la ñu bëgg jox askan bi pour ñu bàyyi mburu bu weex bi rek ngeen lekk mburu mburu composé bi boba du amat boobaa ñu am baykat yi danañ yokk li ñuy li ñuy kii boobaa mboq bi dana dana raar boobaa dugub dana raar foño dana rar ñun loolu lañ bëgg. mais boba tamit est-ce que du cher. <laughs> non non non sera moins cher. sera moins cher justement amuñu problème boobu sera moins cher mais du nekk en terme de baguette comme ni nga ko bëggee n'est-ce pas mais on va wala ñu réduire le taux d'incorporation le taux d'incorporation bi pour ngeen am baguette bi loolu la ñuy loolu solution la aussi bu ñu xalaat boo yaakaar naa bu ko defee du bañ béykat jaay seen dugub ak seen mboq. mbokk yi ak xarit yi ñuy fàttali ne rek suñu gan ay bés bi tey ji moo di Amadou gay di président FNBS Amadou consommateur yi. lu ñu soxal la ndax si décision yi ngeen di jël yëpp da ngeen di waxtaan ak ñooñu. dama lay bëgg a yëgal ni les centaines de réunions yu ñu def toutes les réunions association consommateur ñëwoon nañ fi sen ASCOSEN représenté par surtout parce que Cissé.

moo xam bi actuellement nii boo jëndee sa mburu bi nga ko boulangerie xam ban la donc loolu amatul traçabilité loolu la ana boutique jaay ma mburu yi amatul boutique jaay mburu politique bi dugg ba man sama bopp dama xaw a tax doxul. mënul parce que la vision ñun ñoo bokk nous essayons d'accompagner les boulanger mais la vision bi ñu am ñun parce que ñun actuellement nous koy doxalee moom lañ nous ni moo war mais malheureusement nous mënul dem parce que c'est un peu politique On pas bëgg mu rentrer dans certains détails euh, politique mais il faut nga quand même ban. non c'est un politique c'est-à-dire que je dis la vision c'est-à-dire que mille se relève waroo ñëw rek brûler les étapes parce que ku yàgg si mburu xam nañu système de distribution nu muy demee il faut le faire d'une autre manière et on a l'idée mu tax ñu am idée wu baguette box yi qui est très très bien maanaam jox la comme genre caisse sa kër ñu jox la fa mburu loolu la ñu war a continuer man vision boobu laa am si jaayma mburu mais beneen vision aw ma ko man aw ma beneen vision beneen vision bi duggaat nag mooy vision distribution people loolu day mel ni li fi nekk moo fi nekkaat amul sens mais bu ñu une traçabilité jël commande nga xam yow ngay commandé nga fekkee sa kër sa boîte postale jox la man vision boobu la am si jaay ma mburu te boobu moo mën a continuer boobu moo mën a nekk te boobu nag commencé nañ ko ñu ngi koy def si te bu ñu sañoon nag mu gën law malheureusement ça ne passe pas parce que bougé guñu boobu ba léegi zone boobu te bu ñu sañoon Sénégal bi yëpp nañu ko doon def. chariot yi fii nekk di yobu ay mburu ak yooyu ndax nekk na phénomène boo xam ne mën na fi jóge ak yan jumtukaay ngeen mën a teg ngir loolu wala bu nguur gi mën a teg ngir loolu jóge fi mais yoon da ko aaye c'est-à-dire que dañ ni mburu mun ñoo koo distribuer que dans des conditions hygiéniques dañ ni moto du ko livrer vélo du ko livrer auto auto moo ko mën a livrer te oto bi aussi day am toutes les normes hygiéniques parfois du am feeñ après ay question loolu la ñu wax léegi nag kenn defu ko yow tey pus-pus yi takkat naa si fii nit ñuy jël seen saaku mburu velo yi benn vélo jël lu mat vingt saaku yore ko mais mais dama bëgg waa askan bi dañ nekk si période Covid mën naa la biral ni mburu bii nekk na vecteur bu gën a yokk seen pandémie bi. waaw ah ça je te le garantis. comment mburu boo jëlee place sàngam place place bële place bële place bële. mu jóge fii ñëw si benn boutique dëkk si koñ bi Ibra ñëw dugg laal laal laal Samba ñëw dugg laal laal laal gën saa néew laal en moyenne cinq dina ko laal même mburu beneen innocent moom jóge jógee fële xamul lu muy lu gaal di riir mu ñëw rek jël mburu yóbbu këram këram dara am fa woon léegi nag transmission bi mu que feebar bi dafa yéeme ba nga xam ni kenn mënuloo sax nu muy nu muy transmettre mu gaaw mais dañ jàpp ni tey boo demoon c'est sûr que dem si boulanger bi jënd fa mburu risque bi moo gën a moyen parce que ñi laal mburu mi bëriwuñu boo tombee mu ne fa mburu mu tàng aussi risque bi du fa nekk. yan matukaay ngeen ci jël ngir aar ñi nga xamante ni mooy liggéey si mburu matukaay bi ñu jël mooy que naka la ñuy defee ba respecter réglementation bi su nga tey suñu respecté réglementation bi coow du amati askan bi dañuy am jàmm di am mburu bu baax ak qualité parce que bu boobaa boulanger seen bi ñooy concurrencé di génne mburu bu baax fii ku fi deful mburu bon mburu ba gars yi dañ lay xamante dañ lay baye de sa qualité su baxul moo tax boo gisee ñëpp ngi jëm changer sen matal fouri ñi ñu ngi changer sen fouri ñi changer sen place yi loolu boo xoolee phénomène bob mi ngi mi ngi mi ngi law Sénégal ah léegi nag euh, il faut comprendre que nit ñaa ngi defaraat mais nag modernisation bi tëbul rek sotti moo tax ñun suñu liggéey moo doon loolu pour wax nit ñi ne changer il faut changer il faut que les boulangers changent et puis ça d'ailleurs ça man je quelqu'un qui me qui est un peu à terme Madame man man euh, je vais je vais bientôt quitter en fait je veux dis, je vais plus m'occuper de ça mais euh, il faudrait quand même aujourd'hui qu'on puisse un peu changer c'est-à-dire que génn fii dem si un euh, autre type de boulanger pour ñu labellisation le donc il faudrait quand même aujourd'hui man idée boobu wax aujourd'hui nous mu même pour les 50 boulangeries, boulanger qu'on les labellise loolu laa wax ni liggéey boobu formation man me ni, la formation des boulangers parce que depuis 88 vingt formé parce que je suis aussi parce que aussi en même temps man mon business dafa élargir parce que yow mu ay boulanger kese dama nek aussi équipementier donc dama bëgg ñun ñu mën di loolu la bëgg manam déplacer wu euh, loolu mooy liggéey bi nga xam ne ñu mën a déclaré mën a loolu di nga permettre ñu am labelliser pour sénégalais yi xam ne ñun li ñu liggéey c'est pour moderniser le secteur tey boo ñëwee si boulanger bi mu am label di nga am fetu dugg fa bu amee keskam bu am label di nga am fetu jënd fa nous voulons que c'est un pain de qualité et certifié de la C'est parce que euh, euh, people gens qui dafa am ñu métier euh, obligé de changer parce que si vous départ en 2012 par exemple. 2012 ba léegi beneen une grève en 2019 ni ñu jàppoon ni man sax nguur daf may jënd mais yàlla def na man ku juddoo famille boo xam ni à 18 ans def na xëy xam à 18 ans Il euh, y am xaalis que qui may wax ni yow ni tey pour tu avais moins mais tu vivais très bien aujourd'hui tu peux encaisser un millions mais bu guddee doo ko gisati si gàttal pour wane ni rek y a beaucoup plus de problèmes que bi ngeen nekk xale yore sa ay oto yu bëri nekk xam nga pour dire simplement que euh, vision vision vision vision boulangerie bi euh, loolu daal maanaam métier bi daal dafa am fi yàqu lu bëri ni ñi jàppoon nañ ni dañ maa ger ma mais yéen man je suis conscient dama dama tout euh, lu may def dama koy xoolaat bu baax que nous avons poussé ces révoltes ou là dedans. Les plus nuls, parce que les nuls comme mieux, c'était normal..! Parce que mon prime prime sens a mon sens iman, a mon sens belge iman. Tant que règle au secteur bi, bougnou diaron boulot 1 million tay, tay boulot boulot diar 1 million tay. Tant règle au secteur bi, d'ailleurs un problème. Donc là, là moi je nous compagne. Ce n'est pas le prix de 100 francs, 200 francs. Il y a des gens qui pris au poids. Mais justement, si vous voulez 230 grammes, mais le problème est réglé. Quand tu payes 230 francs, son, son 1 gramme, 1 franc, là. Si, tu, si, tu veux un pain de 190 grammes, mais tu payes 190 francs. Mais c'est parce que vous avez créé le format. Non, le format n'est pas l'État qui l'a autorisé par des arrêtés. C'est normal. Même si l'État est autorisé, tu peux le faire. C'est l'État a fait pour, pour, pour harmoniser, pour dire que les gens fait, ils l'ont fait, fait. Parce que les consommateurs aussi, ils sont beaucoup mais ñun aussi état aussi war na gestu ni ah man tamit war naa mën a contrôler ndax sama euh, boulangerie yi du ñu fayit parce que bu ñu fayitee dañuy dañuy pété emploi mais mënoo ñëw nga ne da ngay créer génne xaalis pour créer des emplois en même temps ngay fermer ay boulangerie yaa ngi wax ni que euh, yegg nañ si ndaw émission bi yaa ngi wax ni que bu bu ngeen fayitee dañuy perdre ay emploi ak yooyu secteur boulangerie nekk na secteur tamit bu xaw a bu bëri coow ci secteur yi euh, rawatina travailleurs yi employés yi bëri na lu ñuy ñaawlu wala di ñaxtu comme quoi que cette situation dafa précaire lan ngeen ci indi comme solution. waaw ñun nag effectivement euh, loolu dañ koy dañ koy gis mais dama bëgg ñu xam ne euh, mënuñoo lépp lépp à la fois gis nañu effectivement yenn patron boulanger nañu war a fonkee boulanger defuñu ko loolu moo waral.

maintenant j'ai appris aujourd'hui barème biblons et j'aurais fait actuellement ni dépasser le barème 2019 c'est à dire que l'année où nous faisons nous dépasser n'est ce pas amener nous faisons 100 000 150 000 200 000 même on dépasse le barème le montant nous ni l'année où le gars nous ben convention convention collective des ouvriers de, de la boulangerie en 1954, on est en train de le changer avec le ministère du Travail. Lors de ce double moyen, requalifier les fonctions maanaam tey nit boulanger tey dana la man pétisseur rek laa ni man mënuma jàmb mais mu lakk laa man loolu kon mënoo kon moo ko loo sa métier booy togg ceeb nga ni man tey rek laa mën loolu la ñu ne moom dafay dañ léegi dañu bëgg requalifier les emplois maanaam tey dañ naan ouvrier boulanger qualifié soo dee ouvrier boulanger qualifié dañuy sa salaire da gën a yokkaat su dee yow ouvrier boulanger bu am diplôme da ngay am salaire bu gën a yokk loolu dañoo d'accord ak waa CNTS avec le ministère du travail on va bientôt signer cette convention boobu pour non seulement yokk salaire mais day fekk yow boulanger bi nga am men métier bi nga xam ne de A à Z tey di nga mën a jàmb di nga mën a fourner di nga mën a def lépp mais am ñoo xam ne tey boulanger yoo xam ne boo leen woon xorom lu muy jëriñ si mburu duñ la ko wax dañuy yàkkat ne rek dafay safal donc nak lolou laaj na formation am ñu xamna la man mënu ma jàmb wala mënu ma jàmb mënu ma fourne léegi laa man pli te mënuñu ko sax pli bi donc lolou yépp moy laaj formation ñu ni kon convention bi ñuy def dañuy yok salaire yi ba paré mais boulanger aussi dafa wara am qualification lolou day permettre nit ñi dem jang métier métier bi en tout cas lolou mom mo am ni ñu ngi koy bëgg def pour dala xel ouvrier boulanger yi duñ sen noonu

Amadou Gaye ñu ngi lay gërëm di la sante man ma leen di remercier bu baax vraiment di rafetlu seen équipe bi yëpp di ñaan yàlla collaboration gën a gën a gudd pour nga xam ne ñun économiquement dañu bëgg rek réew mi avancé bëgguñu xuloo bëgguñu xeex mais par contre nag bu dee état bu jàkkaarloo ndiw ni la yow fama toroxal la mais loolu la nga il faut nga résister pour ngeen comprendre sens su grève bi mais je ne sais même pas aussi aujourd'hui parce que ndax dañ ko maintenir duñ ko maintenir parce que à cause de la pandémie j'ai tellement de pression de certains boulangers par rapport à ça on verra est-ce qu'il y en a bientôt. Mbokia, yi ak nous yi yéen de ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig ay di ñëw.